safu 24 actu yi dal leen ak jàmm si xibaar nga xam ni moom la ñu jagleel màggalu Touba li ci gën a fës bokk na ci forum bi nga xam ne commission communication culturelle ñu ngi ko war a amal si ñaar fukki fan ak ñett si weeru septembre di tombe ak 15 safar si loolu rek commission boobulee daal nañ amal benn communiqué si dimanche bi passé ànd si ak presse bi fële sa résidence Seexul Xadim bu Daaru Marnaan ngir waajal forum international boobu rekk ñu war a waxtaanee si thème di le rite malikite et dans la cohésion élection waaye ndaj boobu yemalewuñ ko ci Sénégal yi rek ñu ngi ci war a ànd ak ay scientifique yu xereñ ñenn ñi di jógee fële sa Maroc waaye rek ñeneen ñi war a jógee fële sa muritani ñu ànd si ak seen njiit bi di Serigne Mbacké Niang ci micro Thierno Faye. Euh, ren incha allah niñ ko baaxoo defee rek euh, at mu nekk euh, kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu wàllu jokkoo bi ci commité comité d'organisation bi te Serigne Cheikh Abdou jiite ko dafay jëflanteeg. daayira Rawdu Rayaahiin nga xam ne daayira la boo xam ne bu autonome la moom sax moo mag kuréel gi moo ko fi jiitu euh, waaye euh, ndegam liggéey bi ñoo ko bokk daayira Rawdu Rayaahiin dafay taxaw taxawaayu bras technique ci euh, comité d'organisation bi ren incha allah dañuy amal benn from ni mu ko waxee muy benn ndaje boo xam ne ab bis lay doon ab bis lay doon Euh, euh, ñu di ci waxtaane tomb bu ama ama am solo euh, boo xamante ni soxalul rek Sénégal waaye soxal na Afrique soowu jant ak yeneen réew yoo xam ne sax nekkuñ ci biir Afrique ca mooy ngirum imam Malik courant la courant religieux la boo xamante ni ci wàllu fiq mooy ni ñuy dundee suñu diine naka naka lañ koy dundee da ci am ci àdduna bi partie bu ama am solo boo xam ne ñoom boobu lañ lañ jël bu loolu jàllee ñi di waa Sonatel daan nañ inauguré seen agence bu nekk fële ca Touba Darou Khoudoss si altine bi fukki fan ak ñett si weeru septembre si teewaayu porte parole xalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khader Mbacké agence boobu di concept smartphone store nekk na seen ñaareelu agence fii si Sénégal si loolu rek. kii di soxna maam jaara soo moom nañ ko daal di tuddee waaye lii di waa Sonatel daal wax ne dinañ def seen kémtulaay kàttan ngir rek lii di réseau du manqué fi si dëkk bu sell bi di Touba te it dinañ installé lii di ay wifi fi si jumaa ji waaye rek ay wifi gratuite lay nekk ba tey rekk si yoon bi di Ila Touba daal nañ yokk réseau boobulee ngir rek problème de communication du am ñu teelu kii di directeur général bu Sonatel Sékou Dramé si micro Mbay tuddee ko soxna su sell si soxna maam Jaara Bousso nekk na loo xam ne waa Touba yàgg nañ ko xaar yàgg nañ di ñu ko laaj di ko sàkku ci Sonatel suñu liggéey ñun dañu jàpp ne dañu war di déglu client yi di xam déglu seen bëgg-bëgg te tamit di dox pour saafal ko ut ci ay solution bu njëkk suñu client yi dañ daan jóge fii di dox lu mat 8 kilomètres pour dem suñu agence ndam pour mun def yenn opération yi bien vrai que am nañ fii ci biir Touba ay partenaires yu ñuy représenté ci ay boutiques waaye am na service yoo xam ne ci agence Sonatel rek lañ ko mënoon defee te loolu dafa metti woon ci ñoom loolu moo taxoon ñu jëloon décision ne dinañ ubbi beneen agence pour gën leen jege. si ndigalu sëñ Muntaxa Mbàkke kii di sëñ Bass Abdou Khadre nay def benn déclaration si altene bi ngir xamal askan wi ne hôpital bi nga xam ne état def na ko fii si Touba dinañ ko inauguré samedi bi si teewaayu xalif général des Mourides sëñ Muntaxa Mbàkke ak kii di njiitum réew mi di Macky Sall waaye rek di ci soññu mbokk taalibe yi si élection yi di jub si ngir ñu moytu def wala wax lu ñaaw fi si dëggu sëñ Touba bi te itam yëkkati na fa ay kàddu jëmale ko si ñi di def ay manifestation di leen wax amati lu la metti am na ñoo xam ne ñoo fi nekk ngir loolu ñu ànd si ak Serigne Bass Abdou Khadre kii di Abdoulaye Diouf saar nekk jëwriñ di yor wàllu wér yaram def na benn tournée fi ci Touba ci talaata bi ginnaaw bi jaaree ci bërëbu fajukaay bu mag bi ñu war a inauguré samedi bi daal na dem rek sa résidence Cheikh Bamba bu Daaru Minam ànd ci ak délégation ak kii di sëñ Bass Abdou Khadir ndaje boobu lee liñ ci tenk ci ay kàddu muy jumtukaay yi jëwriñ boobule indi si waajtaayu màggal bi ngir moytu lawtanu jàngaro bi di coronavirus waaye rek wax na fa mutuwaay yi muy jël ci diggu safar bi ngir aar askan wi ba tax na dinañ fi teg ñaar fukk ak juróom-ñetti ambulance juróomi camion ngir saytu wërgu yaram waaye rek lii di ay tente ak ay oto dinañ ko fa daal di teg ñu ànd si ak Abdoulaye Diouf Sarr. tey dañoo ñëw fii si Touba pour xool. dispositif bi ñu teg en place pour préparer magal bi ndax vraiment lépp jaar na yoon moo tax donc euh, ñu dem seeti waa service d'hygiène ñoom teg nañ seen dispositif lu ñu amoon daaw def ko daaw lu ëpp la ñu def parce que am nañu ay moyen yu bees léegi te moyens yooyu yëpp indi nañ ko bu ñu jógee service di d'hygiène euh, dem nañ aussi xool bu baax lu ñu def au niveau du SAMU national SAMU national ñëpp xam nañ ko mais fii si Touba ren dañ fi inauguré benn antenne bu bees parce que SAMU day sampu léegi fii si Touba loolu tam nekk loo xamante ne vraiment ñu koy rafetlu dispositif médical bi tam danañ ko mettre en place de partout à Touba képp koo xamante ne bëgg nga faju rek am problème mu santé rek si bër màggal bi si sa boor ñu mën ko teg benn poste wala benn structure avancée bu la mën a jël en charge màggal bi dafa nekk si benn contexte pandémie moo tax ñu bu baax si ay masques indi de masques pour que chaque fois un pèlerin bëgg effectivement donc masque ñu mën ko ko jox bon nag taxaw nañ pour que màggal bi ñu def ko dans les meilleures conditions. mbokk yi jërë ngeen jëf loolu lañ leen loon ci xibaar di màggal dig daje ba beneen yoon.